di ñu seetaan ci biir réew mi ak biti réew mi dellu siwaat nañu ci weer wu tedd wii di shahru ramadan al mubarak di leen nuyu nuyoo bu tedd bi nga xam ne moom lañu lislaam boole ak yéen di ñaan yàlla defal leen jàmm wuuf leen tam ci biir yërmandeem waaye itam yal na yàlla def barke ci seeni am-am def barke ci seen dund waaye def barke tam ci seen njaboot mbokk yi dellu nañu comme ni ko baaxoo at mu nekk ci weer wu tedd wi ñuy toog ci barab bi ci programme diine bu am solo bi nga xam ne miin ngeen ko ramadaan bu nekk ngeen di ko gis di ci jàng seen diine waaye di ci jàng lépp luy taaral seen jikko ak luy rafetal seen dëkkin ñu xamee ko ci rafetal sa dundin muy programme boo xam ne Africell baaxoo nañu at mu nekk ci weer wu tedd wi ñu koy may jullit ñi ñu di ci jàng seen diine waaye di ci jëriñu ren nag mbokk yi programme la boo xam ne dañu ko yaatal ren boole ko ci website bi nga xam ne ki nekk ci biir Gambia dana ci jëriñu waaye doomi Gambien yi nekk ci biti it danañu mën a bokk ak ñun waxtaan wi pour jëriñu ko programme bi nag pour nga bokk ci soo ci bëggee bokk fokk nga def www dot africell dot gm boo defee www dot africell dot gm dina la wan home bi suñ home boobu nag boo ko ubbee dinga fa fekk benn barab benn place boo xam ne dinga fa gis ñu ngi la fa bindal forum soo kiligee forum boobu nag moo lay jox your first forum boo kiligee your first forum boobu moo lay wan nag dina la wan nag rafetal sa dundin ak oustaz Abdoulaye Dramé soo demee ci rafetal sa dundin foofu nag dinga fa fekk post reply post reply boobu nag yow mi bëgg a bokk ci programme bi te bëgg a laaj lu aju ci sa diine mun nga yónnee sa question yi muy sa laaj yi mun nga ko yónnee foofu bu dee da nga bëgg a contribuer ci programme bi tamit mun nga ko yónnee foofu kon noonu ngay mën a bokkee ci euh, programme bi incha allahu taala ñuy ñaan yàlla subhanahu wa mu defal ñu dégg ak topp ci wax ji defal ko ku koy wax ak mbooleem ñi koy taataan di ko déglu pour ngeen bokk ci euh, programme bi faw ngeen dem ci euh, sunu website bi mu di www dot africell dot gm mbokk yi mu mel ni tey li ñu fas yéene waxtaanee mooy lu aju ci koor ak ngëneeli koor weeru koor borom bi tabaraka wa moo ko faratal def ko mu nekk ñeneenteelu ponk ci lislaam mu faratal ko ci way gëm yi comme ni ko alquranul karim jàngale borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun borom bi tabaraka wa taala nee na ee yéen ñi gëm yàlla yàlla farataal na ci yéen koor comme ni mu ko farataalee woon ci xeet yi leen fi jiitu woon ngir ngeen jëlee ci koor ragal yàlla kon koor ponk la ci ponk lislaam yi juróom yàlla def ko mu nekk farata ci way gëm yi waaye li muy jàngale si mooy li ñuy tuddee taqwallah mu di ragal yàlla kon koor li muy jàngal jullit ñi walla li ko tax a jóg yépp moo di yar bakkan yi tàggat leen waaye defar nit ki ba jox ko li ñuy tuddee taqwallahi mu di ragal yàlla koor nag di jaamu yàlla boo xam ne bu bari ngëneel la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nañu ko bokk na ci ngëneel yi mooy yàlla defal na aji woor ji waxtu woo xam ne lépp lum ci ñaan yàlla rekk yàlla def ko koy nangul yonent bi wax na ko nee na inna li saaimi inda fitrihi daawatan laatu turaddu te loolu aji woor ji rek moo ko am yent bi nee na yàlla defal na aji woor ji waxtu wi muy dog kooram bi nee na waxtu woowu lépp lum fa ñaan yàlla ci aw yiw lépp lum fa yàlla ci lu baax yenent bi nee na loola yàlla daf ko koy nangul yàlla daf ko koy jox kon loolu benn la ci ngëneel yi nga xam ne ne Eh, borom bi tabaraka wa eh, def na ko ci koor koor mbokk yi jaamu yàlla la goo xam ne njëriñam du yem ci àdduna kese waaye dana jëriñ jullit bi ci àdduna ba pare jëriñ ko ëllëg sax ca àllaxira yonent bi wax na ko neena yàlla def na ca aljana benn bunt bu ñuy wax rayaan nee na bu yowmal xiyaamee woorkat yi bunt boobu ñuy wax rayaan ñoom fa la ñuy jaaree dal di dugg aljana yonent bi nee na bu yowmal qiyaame dina am dina am malaaka bu oote ci làmmiñu sunu boroom ne ana ñan ñoo daan wooral yàlla ci àdduna su ko defee képp ku daan woor daldi dina ñokket jog taxaw ci biir bindeef yooyu malaaka yi na leen seen bunta nga noonu muy rayaan yàlla nee na ngeen jaar ci dugg aljana yonent bi nee bunt boobu nag ñii woor rekk la ko yàlla jagleel te ñoom bu ñu fa duggee ba jeex dañuy tëj bunt ba dootuñu mayati kenn mu jaar fa dugg aljana lu dul woy woor yi xadis bi nii la tëddee ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد خيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد خيرهم فإذا دخلوا أخلق falam yadduqul minhu ahad kon loolu yëpp day jàngale ngëneel gi nga xam ne yàlla def na ko ci weeru ko yonent bi alayhi salaatu waxaat na ne or daal aji woor ji yàlla jox na ko ñaari mbégte mbégte bu njëkk bi mooy bu wooree ba jant bi so mu dog dafay kontaan waaye bu dajeek yàlla ëllëgit bu ko yàlla fayee ko